rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati wajal waadi watanala bismillaahi rahmaani rahiim moo tey mooy sunu juróom benneelu jotaay ci sunu téere nahju qadaa il xaaji nuy tàmbalee ci farxam sagiran laa takun mudaxira anhu layaadan min nasihatin tara ne farxam na nga yërëm ndaa wax kama ashaara bi qawlihi kama ashaara ilayhi bi qawlihi ni ko waykat bi waxee mooy farxam na nga yërëm saxiran aji ndawe laata kun bul nekk mu daxiran di aji denc anhu walis ko layaadan dara min nasihatin ci ak laabire tara goo xam ne danga gis fiiha ca laabire ga lëxoo ñeel gone ga rushdan ak njub wa waxir te nanga wekk nanga xormaal alkabira aji mage ja walaw raaytahu ak doonte gis nga ko daifan muy aji doyadi wa xaqiir tey aji xeebu nee na ki nga xam ne moo la féete ak ndaw bul ko nëbbal dara ci loo xam ne gis nga lu baax loo xam ne boo ko ko laabiree mu jariñ ko bul ko nëbb boo ko nëbbee rek loola bokk na ci déydu ko ci ñàkk ay teggin mooy ñàkk laabirante kon nee na gone deesu ko euh, deesu ko mere dañ koy jubbanti ndax lu bare bari ci li muy def ak ñàkk xam la kon nag nee na bul ko dencal dara ci ak laabire koo xam ne xam nga ne mënoon ko koo wax mu jaare ci jub te doo ko ko wax mag mi tamit da nga koy xormaal ak lum la nuru ne dafa doye di ci kaw wala mu nuru ko xeebut na ko xormaal rek na nga ko xormaal ngir jëmm yàlla loolu la wax wa in kaana abdan abashiyan lu nuru nurul xeeb rek loolu la ci jublu tekkul ne waa xabasa dañoo xeebu déedéet waxin la rek wa min ta'addubika bokk na ci sak tegginu an laa tandura nga baña xool xaqan xaq li nafsika ñeel sa jëmm ñeel sa bopp xalaa saxsin ci kaw jëmm tara joo xam ne danga ko gis wa an tara ak ngay gis ne an naka naka yow lasta mustaxiqan déet nga aji yeyoo waaye tax mu def lasta mustaxiq lasta déet yow mustaxiqan ngay aji yeyoo shay an dara min taadimi ci ak màggal mi man tukkee ca ka nga xam ne xadd yamiqu dana sopp loolu weesoon na ko daanaka mu ne bokk na ci sa nga am euh, say teggin yi nga war a sàmmonte mooy bul gis ne kenn yow da am àq ci kenn bul gis ne yow kenn war na laa màggal wala kenn war na laa war ma wala nangam déedéet yow kay yaay jàpp ne yow daal bu war ma dee am yow yaa ko ci yow la war a bàyyi ko waaye bul jàpp ne nag nit ñi ñoo la war a fonk ñoo la war a def nangam ndax boo jàppee loola kon gis nga sa bopp jàpp nga ne am na lu nekk ci yow lu ñu war a màggal loola nit ki waru koo gis du xam-xam du alal du ak juddu du dara lu nit ki war a gis ci bopp nit ki daa war a xeeb boppam jamono jum jamono jum mën a doon ci wàllu woowa. naka noonu bul jàpp ne kenn war na laa màggal rawatina ñi nga xam ne dañ laa sopp ñi xam ne dañ laa sopp nga defee ne kon sopp gañ la sopp di la fonk ka nga def ne loola yaa ko yeyoo bu fekkee ñoom seen bopp ñoo jàpp loola di la fonk te yow téewut yaa ngi xeeb sa bopp ci sa xol ñoom ñoo la teg foofu rek ci lu mënta ñàkk loola kon ayut waaye daal yow bu ko jàpp bul jàpp ne lii da koo yayoo di ko def balli am kay mooy tabir na nga xalam na nga bàyyi xel al ba teggine min nafsika ci sa bopp walla wala tutaaliban bul sàkku bihi ci moom al asxaaba àndaale ya nee na ay teggin de ci nat natt sa bopp bu ci bu jéem a xool nit ñi maanaam bul xool nit ñi ndax jëfe nañu ay teggin wala jëfewuñ ko yow na nga ko fas rek da ngay dégg Sénégal ñu wax ah nangam ne moom daanaka léegi kenn defatu ko yow def ko rek bul jéem a lijjanti nit ñi ñu ngi koy def wala defatuñ ko ah nii de boo ko bëggee dund da ngay sonn lii daanaka xew na wala nangam déedéet. yow del bàyyi xel sa bopp rek yow daal diw jëfe na teggin ak jëfewu ko yow del jëfe ay teggin yow sa jëmmi bopp waaye nag na gaa yi def ànd ak man nag loolu moom bu ci bàyyi xel ak kenn defu ko man dong koy def déedéet def ko rek wakkun na nga nekk ma an naa si ànd ak nit ña jamian mboole seen daharaka sa diirub jamono kama tuhibbu naka ngay bëgge an yakunu ñu nekk ñoom nit ñi maaka di ànd ak yow nee na nit ñi daal ci gàttal kenn ku nekk na xool na mu bëggee ku ko fonk na mu ku ko xormaal na mu bañee ku ko tooñ na mu ku ko wax lu ko naqari mu xam ne nit ñëpp ni moom lañ mel dañoo bañ loolu bëgg nañ lim bëgg bañ nañ lim bañ su ko defee rek jàmm na ñooy kenn ku nekk ni nga bëggee nit ñi nekk kook yow yow nekk kook nit ñi rek loolu mu wax ju wax ju yaatoo yaatu yaatu la ku nekk xam na ne kenn bëggul ko sàcc ku sàcc sa alal yow kon bul jël alali kenn kenn bëggul ku ko xas bul xas kenn kenn bëggul ku ko jëw bul jëw kenn kenn bëggul nangam bam bam bari kenn bëggul ku tudd seen waa kër di ci wax lu ñaaw bul tudd waa kër kenn di ci wax lu ñaaw kon nit ku nekk booy tudd wax dara jëme ci ñeneen xoolal ba xam lii ngay waaj a wax ndax buñ ko waxoon ci yow dana la neex neexam déet bu dee déedéet bu ko wax booy waaj a def xoolal lii ngay waaj a def ndax ku ko defoon ci yow wala sax njaboot wala say mbokk ndax dana la neex boo nee déedéet nga xam ne kon noonu la mel si ñëpp nga bañ koo def kon loolu moom règle bu yaatu yaatu yaatu yaatu la rakki jàmbur lépp loo xam ne bañ ko ko def sa rakk nga bañ ko def rakki jàmbur magi jàmbur noona yaay jàmbur noona ku mën a doon rek noona njaalookat ba bu fekkoon ba muy njaaloo ak doomi jàmbur xalaatoon ndax bëgg na ko njaal ak doomam day wax déedéet bëggu ko bu fekkee ba muy njaaloo la ndax xalaat na boppam moom ku ko defoon rakkam dara ko metti kenn ku nekk daal lool boo ko xalaatee sa bopp rek loolu daal sag dund dana neex lool mu ne wakun maa naas jamihan dahraka kama tuhibbu an yakunu maak mu ne yaani dana jublu bayit yooyu muy waaj a wax sarxu bi mu ne yaani dana jublu ni na min xusnil adabi naka bokk na ci rafeti teggin anta tabira ngay xalam maa la nga xam ne huwa moom al adabu moo di ay teggin min nafsika mu tukkee ci sa bopp wala tutaaliban te bul sàkku bii ci moom ku dul ay nga di ci bàyyi xel sa bopp xalam mooy ngay bàyyi xel sa bopp rek waaye bul jéem a bàyyi xel keneen wa an takoon ak ngay nekk maa jamii naas yi di ànd ak mboolem nit ñi kama bu naka ngay bëgg an yakkoonoo ñu nekk maa ka ànd ak yow dégg nga ni nga bëgg nit ñi def la ko rek yow def ko nit ñi waraaxi nanga sàmm xaq dil jalaali xaq yàlla mii borom màgg ga alqaadiri kay aj am fii fiihim ci ñoom li wacc yi ngir jëmmam ja moom yàlla ka xawli shaa'iri ni ki waxee ajawaay ja nee na nit ñi deel sàmm àq yàlla ci ñoom maanaam nit ñi dee leen xool bëtub ne suñ borom moo leen di jëfloo moo leen di waxloo nga di leen dogal ngànt moo leen di jëfloo kon koo gis mu def la loola metti wala mu tooñ la wala mu wax la loola neexut dëgg la deel bàyyi xel ne mbindeef mu xeebu la moo xam ne ay jëfam ak ay waxam yépp mu ngi bàyyi ko dëgg dëgg ci yàlla doonte moom sabab ba ca moom la bàyyi ko ngay dogal ngànt xam naa lii lu mëntoon ñàkk la rek nangam nangam dañuy wax nit ki bu fekkee dalaa wax loo xam ne amut tuumaan la wax la loo xam ne dara du ci dëgg jëru lay metti ndax ndekam li mu wax amut santal yàlla ba li mu wax amut ndax mënoon naa am mënoon naa am nga sant ci yàlla maanaam nga jàpp ne lii moom wax li ma ci li ma ci mën a jànkate mooy xanaa kon daa bëgg ma wattandiku ko rek ndax li mu wax mu amut bu fekkee am na na nga defaraat sa bopp fas yéene lii day lu baaxul la loo xam ne ku ko tudd ci man du ma neex kon naa góorgóor ba mu dañ ci man nga ne kenn du ma mën a tuddal dara lu ñaaw kon ngay sàmm nit ñi nga di leen xool bëtum ne ca dëgg-dëgg yàlla moo leen di jëfloo kon su boobaa rek doo leen doo leen mën a mere ci dara moo tax nit ñu baax ñi amoon nañu tàmmoon nañu bu leen nit di def lu ñaaw wala nangam duñ ko jàppal dara ndax dañuy gëm ne lii dogalub suñ borom la bu jaar ci nit ki ñëw ci ñoom rek loolu nag dara ji ci kawe la. ni ko waykat bi waxe dana ñëw yaani dana jublu ne ci bayit woowu an na min xusnil adabi naka bokk na ci rafeti tegin an turaaxiya ngay sàmmonte fil xalqi ci mbindeef yi xaq xaaliqihim xaq yàlla mi aji bind seen jàll màgg na moom yàlla waala takawe noo koy defee mu ne bi an takuna ci ngay nekk maahum ànd ñoom nit ñi kama xaala comme ni mu ko waxee woon ashaa'iru aji way ja min bahril basiitu ci xabbu wala boog ci daaj bu ñu tuddee baxarul basiit ne lim julu mooy nit ñi ngay sàmmonte ak yàlla ci ñoom ngay bàyyi xel yàlla ci ñoom subhaanahu wa taala ngay dund ak ñoom noona ni ko waykat bi waxee woon ci daaj boo xam ne daaju basiit la daaj daa bëri ay waay rajas ak kaamil ak bëri nañu waykat bi daa waxoon irham uqayyi jamia alxalqi kullihimu wanzur ilayhim bi ayni lutfi wa waqir kabirahumu warxam sagirahumu waraaxi fi kulli xalqin xaq man xolaqa mu ne irham na nga yërëm uqay yow samas mbokk wax yu nu yërëmtalu rek uqay yow samas mbokk jamii al xalqi mboolem mbindeefi kullihimu képp ci ñoom wandur ta ngay xool ilayhim jëm ca ñoom bi ayni lutfi ci bëtum ñeewant wa shafaqa ak yërmande wala ak sopp waqir na nga wekk kabirahumu way mage seen mooy seeni mag warxam ta nga yërëm saxiirahumu way ndawe seen mooy seeni raw waraaci ta nga sàmm fii kulli xalqin ci bépp mbindeef xaqa man xaqi ka nga xam ne xalaqahu bind na ko te mooy yàlla ne waykat bi daa xoon yow sama mbokk mu baax mi mbindeef yépp mbindeef yépp na nga leen yërëm bu ci yéene kenn lu bon soxol bi daal bu ci yéene kenn lu bon moo xam say soppe moo xam say noon dee leen xool bëtub yërmande ak bëtub sopp rek ndax même bu fekkee dañuy def lu bon xëy na euh, nattu la wala ngir leneen la nga dogal leen ngant nga dogal leen ngànt la Sëñ Tuubaa waxoon fa na innahum wa in asaw ko yaa ahad mu ne li ghaflatin lam yushriku bika ahad mu ne nit ñi de ak doonte sax ñi ngi lay moy waaye mooy gi de xëy na du ak tayeef wala du ak bëgg a mooy di moy xëy na matadik doomu aadama rek la gis nga kooku mag leen dogal ngànt nee na ña ña la ca féete ay aw mag nga di leen xormaal ña la ca féete ndaw nga di leen yërëm mbindeef mu nekk ngay bàyyi xel ci moom àq yàlla mi ko mi nga xam ne moo ko bind wa fil xadiisi nekk na ci xadiis laa tasaalu du dañ ummati sama xeet wi bi xayrin di nekk ci aw yiw maadaama li fekk sax na saxiiruha seenu ndaw wala aw ndawam yu waxiru di mekk di wekk kabiraha aw magam wa kabiruha aw magam yarhamu di yaram saxiruha aw ndawam mooy ndawu xeet wi kun na nga nekk ti sa in di boroomu roy bi huddal a'immati ci njubug yilimaan wala ci njubug kilifa ya radi yàlla na gërëm allahu yàlla taala kawe na anhum walis leen fa tahtadiya ca sabab soosé ba da nga gindiku wala ba da nga jub sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa sallam waxoon na ci xadis ba ne sama xeet wi de ci jàmm ak xéewal dong la nekk li feek ñi nga xam ne ñoo féete gone yi ñi ngi weg mag ñi di leen jox cër mag ñi tamit di yërëm gone yi neen li fekk looloo ngi am ci jàmm rek la ñuy nekk kon nag bu ñu demee ba nekkatuñ ci ci jàmm war nañoo xam loolu dañ gis nañ léegi genn gone daanaka du wegati am mag mag ñi tamit moom it même chose kon nag lam ñu santoon ne buñ ca nekkee amu yiw ñu nekkuñ ci asalullah wal kon nee na loolu bu ñu ca saxee rek di nekk ci jàmm li muy teg mooy bu ñu ca saxut jàmm du am nee na nag nit ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañu del roy ci ñoom def leen roy téef ngay roy ci ñoom loolu de boo ko defee danga nga falaatu fala tujaalis man yakunu akbara minka bila daruratin kama tara falaatu tujaalis bul toogaaleeg maanaam bul tooga ndoog man koo xam ne yakunu dana nekk ak bara di gën mage min ka ci yow bila daruratin ci ludul lor ci ludul ngànt kama niki nga gise ngànt yi nag mooy mithla taallumin kem xamlu wa sukkuna ak dëkk aw maash mooy aw maashin wala ak dund wala tujaalis bul toogaaleeg maahu ànd ak moom fawqal firaash ca kaw ca kaw lal ba maanaam bul toog ak koo xam ne moola mag bokk na ci sàmm ay tegin mooy nga bañ a toogaaleeg moom lu dul ne ngànt moo ko waral képp koo xam daal moola mag kon du yàlla ngay toogandoog moom ci kaw lu dul ne nag ngant moo ko waral ngànt nag bu xasee ba am moom xam nañ ne loola ngànt la lor mooy lan ngànt mu limal la ci yenn rek mu ne lu mel ne da ngeen bokk di sàkku xam-xam te fekk moo la mag fopp kon boo watandi ko di yéen ñaar ñëpp que leen di bu toogee ca ko mën naa yéen ñaar ñëpp ci suuf ngeen di toog wala bu dee fa ngay jàngee xam-xam dañ ko defar ba nga xam ne ay mbang dong la kon da ngay toog ca kaw mu toog ca kaw man foofa moom doo mën a doo mën a toog ci suuf kon loola ngànt la wala boog da ngeen bokk fu ngeen dëkk xam bu ngeen bokkee fu ngeen dëkk nag ñaare li ngeen di toogandoo fenn daanaka mën naa bari dem ca saal ba mu toog ci fauteuil yee nga toog ci fauteuil yee daanaka loola mën naa yomb bu ngeen dëkkee daal ngir nga dëkk ci loolu lu xawee jafe lay doon da ngeen dëkk bokk fu ngeen nekk wala ngeen nekk ci ab néeg néeg bi lépp ñu def ci ay matelas nga ne bu toogee ci kaw matelas mënoo lu toog ci kaw ab matelas rek ndax noonu la demee. subaat ba tey mënoo ca dara wala ngeen tëddandoo ngir ngir lor wala boog da ngeen bokk di lekk bu ngeen toogee di lekk benn ngeen toog ci suuf wala fa ngeen di lekkee ñu tegal leen ay banc nga xam ne foofu moom kuy lekk niki boo demee ci xeetu restaurant yi wala ngeen dugg oto mu toogee ci kaw ca kaw ngay toog wala dugg avion wala yu ko nuru kon yooyu ngant la kon daal bu fekkee ne du ngant ku la mag fopp daal na nga koy warmaal bu toogee ci kaw nga toog ci suuf bul toogandoo moom ci kaw. naka noonu bul toogandoog moom ci kaw ab lal bu fekkee ngànt waralu ko kon daal dee ko bàyyee foofa rek tey toog ca suuf fa xaytuma jaalastahu foo xam ne toogaale nga ak moom fa jaalisu na nga toogaale moom bi waqaarin ci ak wegu za sakinatin mbir mu ngay boromuk dal maxaxtiqaarin ànd aku xeebu wa bi rasanatin ak ci ak dal ak ci tenkoñ mooy ak dal rek wala tajlis bul toog mulaasiqan ngay aji ñooxu ngay aji tàpp lëxoo ñeel ko moom kooku la mag aw inda wajhihi wala fa xaar kanamam ga maana ngay toog ci kanamam toog ci kanamam mooy fi jàkkaarloog moom sës rik mooy toog jàkkaarloog janoog moom wala ta mudda ta tàllal naxwahu ca wàllam ga mooy ca wetam uqa yi yow sama mbokk rij la ka sa tànk in sa ndem danga toog wa qudda da nga dammu anhu walif ko tarfaka sab gis mooy sab xool nee na bu fekkee nag toog na def nga lim la sant muy kookee bàyyee nga ko kaw ga wala boog ngant am na ba nga toogaale moom ñaar yooyu bu ci mën a am nga xam ne kon toogaale gi mënta ñàkk mën naa am bàyyee nga ko kaw ga toog nga ca suuf yan teggin nga war a sàmmonteel wala boog yàlla dogal na mënoo toog fu dul foofa wala boog moom moo la ci xiirtal sax moo moo la sonale la faawu nga toog fi mënoo faa ñàkk a toog nee na bu mu ci mën a doon nag boo toogee bul toog toogu toogu koo xam ne dafa toogaale ak moroomam nee na nga toogaale moom ci ak wegu na nga ko weg na nga dal bul yëngatu di juut juuti na nga xeebu lool ba ku la gis dana xam ne toog gii nga toogaale moom. ñàkk pexe rek moo ko waral de waaye boo sañoon doo ko def kon daal bul toogaale moom di wax ca kaw di kii mel ne ñaari morom yi toog déedéet na nga xeeboo xeebo ba nga xam ne euh, dana feeñ na kee daal mooy kilifa gi ne loolu na nga ko wane. booy toog it bul toog sës ko sës ko rek ñooxu ko neen bu ko def bul toog tamit jàkkaarloog moom comme nit toog nga toog jàkkaarloog moom ci njëam lool la wax waaye jublu ko wax jëmmi xar kanamam gi nga xam ne ci la ay bëtam ak yooyu nekk déedéet man daal. bi mu toogee fi mu jublu nga toog jàkkaarloo moom directement loolu nee na bokk ci ay teggin ndax kon heure bu siggee day mel ne du la mën a ñàkk xool naka noonu bul tàllal say tànk jëm ca côté ba mu toogee loolu ak ñàkk teggin la tàllal tànk dong ak ñàkk teggin la boo toogee ku la mag ku ñuy warmaal waxuntuma nga tàllal say tànk muy jëm ca moom nee tey bul ko nekk di ko xool xool ku ne ko jàkk bul di ko def ak a defaat déedéet da ngay sëgg rek booy wax nga sëgg xool ko wala boo xool boo xam ne mënta ñàkk siggi xool tuuti wàcce waat sa bët waaye di ko fixé sa bët nag nee na loolu bokku ci ay teggin mu ne yaani dana jublu ne anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafeti teggin an laa tujaalisa nga bañ a toogaaleeg nga bañ a toogandoog man koo xam ne hoo moom day ak baru moo gën a mage min ka ceew illa li daruratin ndar ngir lor min taallumin ci xamlu aw maashin wala ak dund aw sukna wala ak dëkk wa naxwi daalika ak yu nuroog yooyi wa ida jaalastahu ndem toogaale nga ak moom ci ñàkk pexe fa jaalisu na nga toogaale moom bi sakinatin ci ak dal wa waqaarin ak wegu wa razanatin akok dal wala tajlis sa toog inda waccihi fa njëham muy fa kanamam nga aw mulaasiqan wala nga aji ñooxu lëxoo ñeel wala lëxoo jëm ca moom aw tamudda wala ngay tàllal rijlaka sa tànk naxwahu ca wàllam ga wa ba na nga damm na nga wàccee tarfaka sab gis aanuhu walis ko kon loolu mooy lam la waxoon rek eh, ku la mag fopp daal bul toogaaleeg moom lu dul lor te boo toogaale moom ngir lor wala boog sax toog na fa mu war a toog nga toog fañ la sant teggin yi nga war a sàmmante mooy dal ne tek bañ a bëri ab baj baj bañ a bëri ay wax bañ di ko xool bañ a tàllal say tànk ba mel ne sa moroom nga toogal bañ koo xool xool bu bari mu teg ci ne wala tukathir bul di baril al iltifaata geestu min xayri haajatin ci ludul soxla ci ludul yitte ci ludul aajo fa innahu naka moom min alaamatil jahli mi ngi bokk ci màndargam réer nee na jekk-jekk di dox di geestu geesuwaat te fekk amoo benn soxla jekk-jekk di geestu nga ne ngir mën a xoole dong di dox fu ne nga xool ko sànni sab gët say gët fu ne say bët nee na loola yëfi dof la ne loolu bul ko def ndax léegi rek nga gis loo xam ne waroo koon a gis nee na booy dox daal xoolal fi ngay dox saw yoon rek waaye bul nekk ne di geesu côté bii fu ne nga xool ko loolu deesu ko def ndax lu mel noonu dana ko wax ci kanam dana la yóbboo boo duggoon ci néegub jàmbur daanaka boo duggee ba génn mën ngaa nettali la nekk ci néeba lépp ngir mën a xoolee dugg téen xool la nekk ci kaw xool ci ron lal gi xool nang xool nangam ba nga xam ne boo génnee mën nga nii ba de lii moo nekk ci kaw nii nii foto photo ngi fii nangam loolu li muy tekk rek mooy kon kooka yërëwut ku yoru dëgg bu toogee daan tekk rek xool fi nga xam ne mënta ñàkk mu xool ko kon nag booy dox bul bëri ab geesu te fekk yitte wëru ko ni dañ laa woo nga war a geesu wala daa am loo soxla daa am loo soxla romb ko ñu di ko jaay nga geesu wala yu nuroog yooya waxad xaala wax na allahu yàlla taala kawe na ci alxuraan ne qul na wax yow yonent bi lil mu'miniina ñeel jullit ñi yaxuddu ñuy damm min absaarihim ci seenub gis alxuraan sax ci suuratu nuur nee na yonent bi salaa salaam jullit ñi dee leen wax ñuy damm seenub gis maanaam ñi bañ a sànni seenub seen seen xool fu leen neex wa ashaara junj na ilayhi jëm ca loola bi xawlihi ci wax ji mu waxaat wax ji muy waxaat nee day dellu ci wàllu xool mooy ci wàllu bay di daa wax ne wala takun bul nekk mukassiral tifaati di aji baril ab geestu min xayri xaajatin ci lu dul yitte ci lu dul aajo ilal jihaati jëm ci wàll yi mooy jëm ci wet yi fay na innahoo naka loolu ala yebiinu dana bir alaamatal jahli di màndargam réer wa fi kitaabillaahi nekk na ci téereb yàlla bi mooy alquran xullil muminin googu ñu waxoon fakkun kon na nga nekk mumtasilan di aji topp li amri zil wara ñeel ndigalu yàlla mi di borom mbindeef yi is ngir jaa dikk na fil xadis ci xadis ba anna rajula anna waxaala ta waxoon na xitman ci lu jiitu saairun aji way wa innaka way woo xam ne wa innaka la tàmbalee dana ñëw fala takun bul nekk dëxëran diirub jamono mu jiilan di aji wëndeel tarfaka sab gis nee na bay di lool lim ci wax mooy la mu waxoon fee rek nee na bul nekk koo xam ne foo tool da ngay gestoo ka gestuwaat di xool te fekk yitte waralu ko xool ndeyjoor xool càmmoñ te yitte waralu ko nee na loola ca dëgg-dëgg màndargam ku dofe la ndax di geesu te amoo yitte loolu ak ëppal la ak ñàkki teggin te it alxuraan santoon nañu la lu wuteeg loola moom la wax ne yaani dana jublu ne an naka naka yow waajibun aji war la alayka ci yow an tam tasila nga topp maa la nga xam ne amaroka digal na la bihi ca loole rabbuka sa boroom min xad min xaddil bashari ci damm ab gis ne na bayit yooyu dala coon dénk rek ne dafa jaadu daa nekk lu yell ci yow nga topp li la yàlla sant muy xullil muminina ja ak wa xullil muminaat war ngaa topp ndigalul sa boroom ci damm sab gis bañ a xool loola neex li an na fil xadiisi ngir naka nekk na ca xadiis ba ne an rasulallahi naka yonantu bi yàlla ba salla yàlla na dolli xéewal allahu yàlla alayhi ci ma wa sallamata musal ko xaala wax na inna rajula kon xadis booba mu ngi noonu lim da wax na is jaa fil xadiisi anna rajula xadis baa ngi noonu yonantu bi nee na inna rajula naka waay la yanzuru dana xool an nadarata xool ba yenn xalu dana yàqoo bihaa ci xool boobee xalbuhu xolam xalbuhu xolam ba kama yenn xalu naka lay yàqoo al adimu der ba di dibaaxi ca sëbëñ ga laa yantafiu du jariñooti bihi ca xol boobee abadan fàwwu muy mukk yonente bi sallallahu alayhi wa nee na dee leen xool lu ngeen war a xool dee leen sàmm seenum gis ndax nee na benn waaye rek dana xool benn xool boo xam ne xolam dana ca yàqu ba du ca mën a jariñoo ci mukk mukk xool loo xam ne lu baaxut la xool lu xaraam xool awre jàmbur loola sa xol yàqoo ca xol bu yàqu nag la ca tegu mooy ak texee di wala ayaasu billah mooy xol boo xam du mën a xalaatate yàlla du mën a jariñooti du mën a dellooti ci ginnaaw du mën a déggati waare xol ba dana yàqu ni nga xamee ne boo jëloon ab der nga di ko sëbëj sëbëñ bu ñu ko waxee mooy der bi boo demee ca ña koy liggéey léeg-léeg mbokki naar yi der bi boo ko indi day am karaw waaye am na fu ñu koy xooj boole ci lu mel ne nen nag wala xeetu produit yi nga xam ne ñoo xew buñ ko génnee karaw gi day dañ ba set wicc wicc mel ne karaw mosu caa sax kon bu ko dugalee ca loola day dindi karaw gi bam set wicc noonu nag der bi ni mu amee woon karaw ñu dugal ko ci loolee produit boobu ñu diw ko ci. karaw gi ruus ba set wicc ba mel ne mësta am karaw boo xoolee yenn xeetu ndënd yi ñuy tëgg ak yu mel noonu da gis day mel ni fi mu mësta am karaw fekk dañ koo dindi rek nañ ko dindee ba mu set ba mel ni mësu am nee na xol sa xol bi leer gi ci nekkoon boo xoolee dara loo xam ne waroo kaa xool nee na noonu lay dindee leer gi ci nekk nga ne kon xol ba day far lëndam far tilim doo ci mën a jariñooti mukk mukk kon daal nee na kon nañu wattandiku di xool ndax mën ngaa xool rek. sa bët ne tegg ci dara loo xam ne sa xol ca lay yàqoo mboolem lu ca nekkoon ak leer day raxasu ba seet wicc ni nga xamee ne der bi bu amee karaw buñ ko foofee rek sëbëj ko rek euh, sibëj ko rek karaw ga ak lépp day dañ ba seet wicc ba mel ne mosu caa nekk su ko defee kooka xol ba du ci mën a jariñoo te mukk yàlla ñu ci yàlla musal waxaala wax na ashaa'iru aji way ja wa innaka wa innaka mi ngi noonu la ma waxoon fa laa takun dahran mujilan tarfaka wala boog la wax ne waxaala xidman shaa'irun wa innaka fala takun dahran mujilan tarfaka wa innaka mi ngi noonu nee na benn waykat nee na wa innaka naka yow in arsalta ndeem yebal nga nem boyal nga tarfaka sab gis raidan muy aji wër li xalbika ñeel sa xol yow man bis ataabatka sonal la almanadiru xoolukaay ya mooy fa nga doon xool ndax ra ayta da gis am na ñu koy firi amaana nga gis allati loo xam ne laa kullahu déet léppam anta yow qaadirun ngay aji am kàttanam alayhi ci moom wala an baax baadihi du caaginu sax lennam te anta yow day sa du caaginu lennam anta yow saabirun ngay aji muñ ko nee na benn waykat daa waxoon ne bu fekkee da ngaa bàyyi sa bët yi rek di ko boyal fu la neex di xool fu la neex di xool tax ndax te bët lépp lum xool xool ba day daal dund lool da koy daal di yëg boo ko xol ba yëgee ciree daal di bëgg a jëfee loola daal di bëgg a jëfee loola boo xoolee koo xam ne waroo kaa xool jigéen joo ne dëgganu la da koy yëg sa xol mu mel ne danga ko bëgg wala mu mel ne bëgg ngaa bànnee ko ca moom su ko dee ciree nag mooy dem doxi loola moom di jëf di def ay pexe def ay pexe ba mën a am loola bàkkaar doo ko am nee na kon boo bàyyee sa bët yii sànni ko rek boyal ko fu la xool nee na bis bis dana ñëw am loo xool loo xam ne dan la sonal mu la ndax mën ngaa xool ba gis loo xam ne bëgg nga caa joti te mënoo koo am tey doo ko mën a muñ kon loolu coono la yaa loo xam ne xool nga ba gis loo xam ne am bëgg-bëgg bi lool mënoo caa joti moo xam kuy loo xool ci ab télé la koo xam ne ab tubaab loola koo xam ne xam nga ne kii mënoo koo gis sax nga xool ko ba gis ci moom awra joo xam ne da ko bëgg seytaan dana jeq ci yow bànneex bi rek ci yow nga bëgg kaa joti te doo ko mën a jot ndax kooka mënoo kaa gis ndax ci téléphone rek nga gis wala ci leneen nga gis wala sax mën naa muy nekk ci mbedd mi xool ba gis dara loo xam ne sa bànneex yëngatu nañu nga bëgg kaa jot te mënoo kaa jot te doo ko mën a muñ su ko defee loolu nag nekk mu mu di la sonal ko xalaat te doo ca mën a jot nee na ko gis loo xam ne mënoo caa jot te mënoo muñ genn wàll nga sax mënoo loolu nag ab coono bu rëy la waxaala wax na aaxaru keneen beneen waykat wayu siiw la sax mu ne lay sa sujaau déet jàmbaar ja allësi di ka nga xam ne yax mi dana aar fawaarisahu ay gawaram ay gawaram mooy ñam àndal di xare yow ma tiaani bisub dëbbante ba mooy bisub jamante ba ida mal xarbu ndeem xare ba tashtailu dana takk lakin na man waaye ka nga xam ne day ba damm na torfan ab gis aw sana wala mu lem xadama ndëggu anil maasi walis ay mooy yàlla fa daaka kooke day alfaarisu mooy gawar ga albatalu ba di jàmbaar nee na beneen waykat nee na ki nga xam ne dafa dem ca xare ba fexe ba déewut aar boppam waaye aar sax ñim àndal ba déewuñu fekk nit ñi ñi ngi jamante xare baa ngi tàkk tàng jër waaye moom góorgóorlu na ba aar na boppam mi ngi rey te kenn mënu koo rey tey fexe na ba ñim àndal kuñ ci bëgg a rey mu aar la ba duñ la rey nee na kooku de nit ñi dañoo defe ne kooku mooy jàmbaar waaye ca dëgg-dëgg kooku du jàmbaar donte jàmbaar la ci liñ mën a déggee waaye nee na jàmbaar dëgg-dëgg mooy ku fexe ba say cër du def genn mooy yàlla ndax lu jafe la nit ki mën naa xeex gañe ñëpp te fi ne téye boppam dong du ko man kon la gën a jafe mooy téye say cër ba du ñu def bàkkaar nee na loolu moo jafe moo tax mu misaale ko ci ñaar mu ne koo xam ne fexe nga ba sa bët bii doo xool mukk lu xaraam sa tànk yii da nga koo lem walis lépp lu xaraam doo dox mukk di jëm fu xaraam naka noonu sa yoxo noonu sa awara noonu sa biir noonu doo ci digal riba doo ci dugal dara nga sa ci sa juróom-ñaari cër yëpp nga sàmm ko nee na kooku daal dëgg dëgg nag jàmbaar la kooku dëgg dëgg bu ñuy wax jàmbaar daal kon kooku la wala tukathir bul baril xaysu kunta foo mën a nekk allahwa fo wa doxka ak ree maa taxarrukin ànd ak yëngatu walax wa ak i neen mooy jëf ju amul benn njariñ wali ditiraaba ak baj-baji mooy yëngatu jóot-jóoti wa tataawula ak yuqamtiku ila tatalluin jëm ci yër xalaa xafiin ci aji nëbbatu musjalan ak lu mën a doom fa innahu naka loolu alaama badaa feeñ na alaamata toysi di màndargam tooy yambar waxi fatal aqli ak gàtt am xel wala ak woyofum xel limal ñeel ka nga xam ne taawada baaxoo na ko muy tàmm na ko nee na bokk na ci ñaawi teggin ba léegi koo xam ne fu mu toll day bari lu muy fox nee bu ko def bul def foo tool rek bari am fox bari ree ju bari da gis dañu mën a ree bari ab yëngatu bari ay caaxaan bari ab juut juut doo toog mënoo benn place dal doo ko def naka noonu bokk na ci ñaawi teggin mooy di jéem a yuqamte ko di jéem a xool ak gëstu loo xam ne kenn santu ko kenn santu ko rawatina bu nekkee loo xam ne dafa nëbbatu te borom bëggul ñu gis ko nag kon bokk na ci ñaawi teggin loo xam ne sa yoon newu ci forom mu ñuy wax nga taxaw ba xam lu ñuy wax comme ni sénégalais yu bari dañ koy def bu bu dara xewee rek faaw danañ génn dem yërlu xool ba xam lu xew loolu bokk na ci ak ay ñaawi teggin lu sa yoon nekkul rek da nga ko war bàyyi ñaar nit ñu ñu gis ñuy wax danañ taxaw ba xam lu xew luñ dégg mu yëngatu danañ jéem ma xool ñëpp ubbi seen bunt taxaw di xool ba xam luy xew kon loola lu sa yoon nekkul ci yu mel noonu dañ koy tere nee na yooyu yëpp daal màndargam tooy la mooy oyof am xel nit koo xam ne daal demee ko amul pas-pas ko amul benn yitte lañ lañ koy jàppee rawatina bu fekkee daa baaxoo loola mooy di di bari lu mu koy def. wakkun kon na nga nekk ginnaaw tere na la loolu mu digal la ni nga war a def mu ne wakkun na nga nekk la dal majlisi fa jotaay ba sa kinal jasa di aji dal aw yaram di aji dal aw yaram. mooy pinge say cër ne tekk bañ a nekk di juut juuti wala zim na nga taqoog waaye wee tax mu def wala zimi wala zim na nga taqoog asumta noppi bi iraadin ànd akuk dëddu mooy wan ginnaaw tufat kon dees nala la jariñ wasbir na nga muñ ala sabbi ca ŋàññi wala tujib bul wuyu ahadan kenn wakkun na nga nekk kama naka la waxee woon al adibu waykat ba wala xat wayam wa nga xam ne wala xat la tàmbalee isit tasa boobu ngir na ko ŋàññante mooy saagaante waxante lu ban mahat takaasu bi ànd ak fenlante ku nekk di wax sa morom waxoo dëgg min aqbahil xisaali mi ngi bokk ci gën gaa boni jikko kat tadaaru bi ni ki dóorante wa kasratu daxki bari abre tumiitu dana rey alxalba xol ba fa xallilan na kon na nga néewal ab wax ja reeja di kon danga nga gërëmloo arab ba buur ba nee na kon boo toogee ci ab jotaay nanga nga dal sa yaram yëpp nga dalal ko bañ a nekk di yëngatu juut juutit boo toogee changé waat déedéet tayit na nga noppi na nga noppi won ginnaaw lépp loo xam ne amul amul njariñ na nga muñit ci nit ñi nga xam dañ lay wax lu ñaaw di la wax lu jaarul sa jëmmu ci na nga ko muñ ngir yàlla bu nekk di tontonto kenn nit moom bu la waxee dara ñaara man a am lam la wax nekk du lu am mu wax la loo xam ne lu am la nekk man yow kat da ngaa siis nga gëstu soo sa bopp gis na loolu dëgg la nga jéem ko dindi kon dimbale na la ndax wax na la wan na la sa ayib joo xam mën nga koo faj wala mu ne la da ngaa siis fekk loola amoo ko nga sant yàlla ci ne lii mu wax de xëy na ñàkk maa xam tey yàlla musal na ma ci xëy na moom daa bëgg sax ma mucc ci rek moo tax mu wax ma ko bëgg ma gën bàyyi xel rek. neen daal ni waykat ba nam waxe woon ci bayit woow mu tàmbale wala xadd amuru ba mu jeex neen na nga def noona mooy ku lay jéema sikkal nga bañ koo faala rek mel na déggoo ko ndax nee na aleykum salaam ndax nee na ŋàññante mooy di waxante lu ñaaw ku nekk di wax sa moroom lu ñaaw wala saagante walla di weddante kenn ku nekk ku wax sa morom weddi ko nee na loolu na ci jikko ya gën a ñaaw waxantumaak nag bëri muy dóorante yooyu nga xam ne gone yi dañ koy fooye am na ñoo xam ne ñoom dañuy séq saagaante loolu moom mooy tegoo fenn say waajur dañ koy def rawatina mbokk yi liggéey ci oto yi ñoo ko gën a tàmm dañuy saaga nga wax ne dañu koo séq dañ ko séq kenn ku ne nangu ka ca des tudd waajur bu wax ca lu ñaaw wala waajur bu góor ñu ne dañ koo séq kooku moom dayob cànkute ak ñàkk teggin foo la mën a tàmbalee. naka noonu di weddandee ku wax nga ne ko waxoo dëgg nangam mu sañ la ko wax nga sañ ko ko wax nee loolu bokk na ci yikko yi gën a ñaaw ak bëri di dóorante ka dàqante ba tey moom it noonu la mel. nee na del wattu ree ju bari ree moom mënta ñàkk del wattu ree ju bari ndax nee na ree ju bari day dem ba rey sab xol xol bu dee mooy xol boo xam du man a waarooti kon del néewal say ree ndax da nga mën a gërëm loo sa borom fal yadxaku xalilan wala yabku kasiran ree daa war néew jooy moo war a bari ndax boo xalaatee li tax nga war a ree moom wërta bari waaye li tax nga war a jooy nag boo ko dee waññi moom doo fi jóg mooy fooy mujj xamoo ca dara mi ngi ñëw ta xamugoo ko nooy faatoo boo faatoo looy daj sa sukuraat nu muy demee dégg nga buñ la dugalee ci bàmmeel loo fay fekk boo yomal xayamee noo kii ak fooy mujj àjjana wala sawara yàlla na yàlla tàbbal àjjana mosuñ sawara waaye yooyu yëpp boo ko xalaatee kon gis ne li nga war jooy moo war a moo war a yàlla noonu yàlla defal dégg topp. mu ne yaani dana jublu anna min al adabi naka bokk na ci ay teggin al mardi yi jadi ju ñu gërëm. an laa tukthira nga bañ a baril a lahwa fo wa doxka ak ree wa laxwa ak i neen wali dutiraaba ak baj-baji mooy juut-juuti wa taxarruka ak yëngatu wa tataawula ak yuqamtiku li tattalia ngir nga yër alaamaa ca loo xam ne xafiya nëbbu na fa innahu naka loolu min alaamati tayshi mi ngi bàkk bokk ci màndargam tooy wa xifatil xaqli ak oyofum xel wakkun na nga nekk saakinan di aji dal maa dumta li fekk sax nga fil majlisi ca jotaay ba mulaazima sumti di aji takkook noppi illa an tusala ndare ndare bu deefi laaj la ndare bu dañ laa laaj an shay'in walis dara fatu ji ba ci sabab soosee ba danga nga tontu kooku faawu sababiya la anhu walis ko bi xafdi sawtin ci oyofog eh, ci suufe kàddu aw taxtaaja walla nga aaja woo ila ila suaali jëm ca laaj ba aw talabihi wala ak sàkkoom moom laaj fa tatakallama ca sabab soosee ba danga wax ala qadril xaajati ci kem aajo ja wala tasiidu doo dolli alaamaa ci loo xam ne tuttaru def na la loruloo ilayhi jëm ca loola min saalika ci ilayhi jëm ci moom min saalika ca loolee fa inna fi sumti naka nekk na ci noppi sitran sutura waraaxatan ak nooflaay kama xiila niki waxees lu njëkk li moom jàngoon nañ ko daa wax rek ne bay la njëkkoon a jàngal mooy daa wax ne bokk na ci teggin yoo xam ne yu ñu gërëm la mooy ngay wattandiku bari fo bari ree bari ay caaxaan bari ab juut juuti bu bari bari ab yëngatu bu bari ak lu sa yoon nekkut nga di ko jéem a yër di ko jéem a xool nee na loolu gàtt xel la màndargam ku ku xelam oyof màndarag moom ku tooy la kon nag ni ngay def mooy boo nekkee ci ab jotaay daal da ngay dal li ñaan pinge say cër ne teg ba nopp boole ci nag noppi bañ a bari ay wax lu dul nag ne dañ laa laaj dara nga war a tontu. kon boo toogee ba yàgg ñu laaj la dara a ah, nangam su ko defee moom mën ngaa tontu waaye nee na booy tontu nag na nga yem ca lañ la laaj bu ca ëppal bu ca ëppal ana sëriñ bii mi ngi fi nga ne daa mel na daa génn rek yem ca waaye nag bul nekk nag di ca yokk lu ci bokkut moom de demoon na Dakar mu neex boo demee sax nangam la fa wuti di gën a guddal su ko defee nag yaa ngi wax loo xam ne ah boo moytuwul rek yi fi mën naa yokk ndax mën nañ laa posé yeneen question yu ci tegoo ah Dakar la dem nanga alum ah, fay def mën nañ laa laajar lool waaye boo nee daa génn rek. yem ca moom jeex na fu jëm nga naa loolu dafa naa taxul ma kii ko ma la ko wax ja daal di gàtt moo tax ma bu la ca dolli loo xam ne nag a ah, boo muy tuut rek eh, loola mën na laa yóbbu mën na laa yóbbu ci leneen kon bu fekkee dañ laa laaj nee na mën ngaa wax booy waxit nee na bul wax ca kaw di yëkkati sa kàddu alxuraan nee na inna ankaral aswaati la sawtul xamiir kàddu gi ñu gën a sib mooy kàddu gu foor ba mel ne kàddu mbaam dégg nga koo xam ne booy wax fu nit toll man laa mën laa dégg loola te la ngay wax amul benn njariñ nee na loola baaxut wala boog sax yow si boppam kenn kenn laaju la dara waaye yow yaa bëgg a laaj léegi dañuy waxtaan ba mu yàgg am loo kii ah, kon loolu nangam daal di laaj dara ngir leeral la ko kon boo ko soxlaa noonu la waaw ah, kon barab nangam kon noonu lañ fay demee wala wala ku bëgg nang kon foofu nga ko di leerlu su ko defee ñu leeral la rawatina bu dee daa jëm ci wàllu diine wala sax yow soxla woo laaj laajuñu la waaye daa am ku sàkku nga wax dañoo sàkku ci yow nga wax nekk ñu wax nga ne ci yàlla rek ñu daa yow sëñ bi yow léegi loolu noo ko gisee subaa kon sàkku nañ ci nga wax su ko defee nga daa di wax. nee na bu mu ci mën a doon nag na nga wax lu toll ne lañ la laaj daal bu ca yokk bul ca wàññi noppi nee na suturaa ngi ci ñaare nit man sama tan najaa ku noppi rek da nga mucc kenn du la xamal lu bari am noof laa it mi ngi ci mooy kenn du la fekk naan la yaa def lii wala yaa ma waxal nangam. benn waykat nee na wax na ko nee na ustur na nga suturaal ala ayba ayib ja mastadanta sa kem kartan bi sumtin ci noppi inna fi sumti naka nekk na ci noppi raaxatan ab nooflaay li samooti ñel noppi waa kon ña ñel way noppi ya wajaal na def way wee tax mu def wajaali a sumta noppi in ayita ndem lott nga ndem lottal nañ la ci tontu na ko def jawaaban muy tontu ruba xawlin bari na wax jawaabuhu tontoom sax fi sukkuuti nekk na ci noppi nee na boroom xam-xam bi loolu la wax nee na dellu suturaal sa bopp ci di noppi boo noppee kenn du la xamal waaye boo bari ay wax rek léegi léegi léegi wax ba wax loo xam ne waru nit ñi waruñu koon xam ci yow nga rëccale wax ko ndax ñaari nit ab mektaar naa na ku bari lu muy wax ñaari lu jëpp rek dana waxtu waxi doona léeg-léeg mu wax ba wax loo xam ne bëggu koon a wax nee na ku ñemoon noppi de da nga xam ne am noof laay mi ngi ci lay bu rëy ñi noppi xam nañ ko ba ci bu fekkee ne dañ laa lottuloo ci wax ni dañ laa wax loo xam ne mënoo tontu dañ laa wedam loo in ayita dañ laa wedam loo nee na su boobaa jëlal noppi nee na nga def ko muy sa tont jëlal noppi nga def ko muy sa tontu léeg-léeg ñu wax la wax joo xam ne wax dëgg yàlla noppi ca moo gën di ca tontu ndax boo tontoo day gën a yokk wax ja rek nga noppi. nee na bëriaa na xeetu wax yoo xam ne noppi bañ caa wax loola mooy tontu la waaye boo ca waxee rek loola day léegi da ngay koo xam ne tooñ la doo nga tax muy wax koo kooka nag bu waxee nga tontu ko léegi coow la day gën a yokk muy gën a wax di gën a wax ba am na lu mu la bëggoon wax moo na ko far wax waaye bu waxee da nga daal tëj sa bopp mu ne doo ma tontu nga nag man koy loolu awma lu ma ciy tontu mu jeex wa fil xikmati nekk na ci xikma mooy wax ju gàtt am njariñ araabi nee ñu law kaana alkalaamu fidda la kaana sukkutu dahaba law kaana bu nekkoon alkalaamu wax fiddatan di xaalis maanaam foor ba mel ne xaalis la kaana kon nekk a sukkutu noppi ci lu njariñ dahaban di or maanaam di wurus maanaa wax ju amul njariñ bu fekkoon ne dafa mel ne xaalis wax ju amul njariñ sax moom përëma ko tane du dara waaye waxin la rek nee na kon noppi ci loo xam ne maanaam du la jural dara nee na loolu or lay doon wax daal noppi ko gën la la bëgg a wax rek loolu nag du wax yëpp xam nga wax ngir jàng alxuraan wala wax ngir jàngale xam-xam wala wax ngir leneen loolu taxul ñuy wax waaye comme xeeti wax yi ñuy wax nga ne amul benn jariñ moom noppi moo ko gën kon bu fekkoon wax xaalis dong lay tollool kon suba nee na noppi or lay tollool gis nga xaalis da nga benn garaamu xaalis rek ñoo ne la 300 francs lay jar. te boo demoon ci or ñu la ñetti junneeg nangam gis nga ni ñu ëppantee nee na noonu lañ noonu la kon noppee gën waaye lépp nag ci loo mën njariñ wa isaa jaaxalaka ndem réere na la ahadun kenn fa arid na nga dëddu na nga wan ginnaaw anhu walis ko bul nekk di tontonteeg moom bul waxanteeg moom wala simta nga taqoog ak sumta noppi kama xaala naka la ko waxee allahu yàlla taala kawe na ne wa arid anil jaahiliin wa arid na nga dëddu na nga wan ginnaaw na nga dummóoyu yow yonante bi anil jaahiliina walis way réer yi ndax réer moo tax ñu nangu laa wax yenn yi baadu ñaawi ñu la koy wax naa la ab dof ngaak yaa ayyuha alladi nuzila alayhi dikru innaka la majnun yow ci yow mi ñu yow mi wax ne ci yow la ñu wàcce alxuraan ab dof nga baadu ñekk ñàkk teggin yooyu ak di ko yëjjët nee noonu loolu leen wan ginnaaw ñooñu buñ la tardel ku nekk la nga am rek ngay joxe wa ida ak alxuraan li ma wax ne wa ida xootabahum dem wàqante naag ñoom aljaahiluuna way réer ña xaaloo ñu wax salaaman wax ju yiw rek ñu ne jàmm nee na bu fekkee nit daa xamul sa daraja wala ba tax mu ñëw jàggate la wax la wax joo xam wax joo xam wax dëgg yàlla jaaduwut nee na jëlaleel bàyyi mu jàll bu ci nekk di commentaire nga na nga takkook noppi rek yàlla sax nee na yonante bi ñi la xamul ba tax ñu ñëw di la ko ju ñaaw bu leen faale ndax dañ lay tardel rek naka noonu ba muy lim ibaadu rahmaan ñi nga xam ne ñooy jaami yàlla yi dëgg dëgg ñi yàlla nangul ba ka alxuraan di lim wa ibaadu rahmaan allasina yamshuuna ala al ardi hawnan wax na ci ne wa isaa xaatabahum al jaahiluun xaalu salaaman ñoom day bu nit jógee fee waxewut xam-xam undut benn débat bu am njariñ lu di wax wax joo wax waxi fitna la ñoom salaaman dañuy wax aw yiw rek jàll day jëlee su ko dee ñoom da ngeen a ragal ak da ngaa ngóortoon su ko dee ñoom yow nga bàyyi dem sa yoon rek loolu moo gën kon jikko jooju bokk na ci am ay teggin na nga jël ko kama xaala naka la waxe asaayaru aji way ja waxoon na ko ci ginnaaw wala xat wala xat waxoon na ko moo nekk noonu waykat ba nee na wala xad amurru ala laimi yasubbu nii wa aifu summa aqulu laa wala xad amurru barexaana ma romb ala laimi ci aji ja ci aji ñaaw ja jikko yasubbu nii mu saaga mu dima ŋàññi wa aifu ma jëlale wala ma wane ginnaaw su ma aqulu topp ma wax ne laa yaani nii déet mu may jublu maanaam kii de waxut ak man xam naa ne damaa romb waa ji mu dama yàq loo xam ne ni mu ñaawee jégg na dayo xam naa ne man lay waxal waaye fekk ku ñaaw jikko nag nga wëlbatiku di ko tontu day da ngay mujj ñaaw jikko nii moom tolloowu leen ba ngay di tontonte moo tax man damaa woon ginnaaw rek daa di eh, wëlbati sama kanam rek daal di xam naa daa am keneen ku mu xanaa man taxuma ko jóg fekk xam naa ne man lay waxal nee loolu mooy ko ju rafet. fakun kama kama xaalal adiibu wala xat nanga mel ne na ko na ko waykat ba waxee woon wa anna tasaabuba wa anna tasaabuba ak naka ŋàññante wa ba ak fenlante min aqbaxil xisaali mi ngi bokk ci gën gaa boni jikko ya wa aqbaxil axwaali ak gën gaa boni mbir ya dégg nga ñaar yooyu taxaw di tontonte ku ku wax ju ñaaw nga taxaw di ko wax lu ñaaw moom it nee na loolu jikko ju ban la ku lay weddi ak di la fenloo yow nga taxaw di ca waxanteek moom jikko ju ñaaw la bokkoon na ci la mu waxoon mooy wa anna kasarata daxki naka bari ab ree lii jàngale woon na ko tumiitu dana rey alxalba xol ba fa in arata ndem namm nga an tafuusa nga tuufu nga texe bi roda rabbika ci ngërëmal yàlla mi sa borom fa qallil na nga néewal ab daxka reeja qaala wax na allahu yàlla taala kawe na ne fal yadxaku nañuy ree xalilan lu néew nee na bari ab ree ree ju bari day wowal ab xol te xol boo woowee rek leeru yàlla du ca duggati kon boo bëggee am ngërëmale suñu borom ba mu doy del néewal say ree ni ko alxuraan waxe ne fal yadhaku qalilan bu ñu xamoon li xew de wax dëgg yàlla lañ war a gën a yittewoo mooy di jooy waaye bu ñuy ree moom nañuy ree nañuy ree lu néew a néew a néew xam la lay xaar da nga xam ne ree moom bu fekkee war naa amit lu néew a néew la war a doon yàlla defal dégg ak topp